mbokk yi dal leen ak jàmm fii ci Siweul ko TV Aminata Touré tàbb nañ ko ci poste bu haut représentant bu njiitu réew mi Bassirou Diomaye Faye mu nekk ab nomination bu yees bi tax tey mu bokk ci cabinet bu président de la république jotoon occupé ay ndombal tànk yu am solo ci nguuru Macky Sall nekkoon Elimane jawriñ ji envoyé spécial jotona Itamite itamit jaar ci présidence bu conseil économique social ak environnemental ginnaaw yile poste yu am solo mu génn ci parti di Benno Bokk Yaakaar ndaxte rek daa jàpp ni Macky da ko écarté daal fal ki di mam Diop ci présidence bu assemblée nationale ci ginaaw li ni mel la daldi ak xujje politique yi jege lool parti bi di Pastef bu yees bi tax na rekk tey Mimi Touré comme niñ koy faral di woowee amat poste ci gouvernement bu Sénégal mbokk yi jërë ngeen jëf ci teewlu bi